C'est un voyage nous nu engagé wu nag euh, à travers le projet MAM MAM mooy migrant comme messager donc ñoom dañuy participer nos si nos de sensibilisation yëpp donc loolu moo tax c'était important formation bu nu defar journalistes yi nu boole si migrants parce que euh, pour que journalistes nous découvrent nu découvrir beneen beneen visage daal ci migrants comme ça des articles article ci wala nous wax à travers la presse mu avons information yu gën a leer les ñoom tamit maîtriser nañ sujet wu migration parce que la migration est vague dafa complexe donc euh, pour journalistes donc c'était important de nous organiser une formation pour xam plus d'informations sur la migration et aussi ci migrants comme ça nous nek ak ñom passer du temps ak ñom liggéey ak ñom pour après dal liggéey buñ ci def mu gëna mu gëna leer mu gëna réaliste. souvent euh, gis nañ ne euh, journalistes yu bëri dinañ faral di wax ci mbirum migration est-ce que dafa am loo xam ne dafa desoon ci compréhension bi te ñu waroon ko gën a defaraat wala daal. waaw am na lu bëri lu desoon parce que migration yombul yombul liguey ci migration yombul ci wax migration donc lu qui surtout moy image négative bo xamné souvent article articles yi dañ ko que soit articles ou wala reportage c'est vrai que souvent dañuy faté, sax que ñi nuy waxal ay nit donc impression bobu am en tant que OIM suñu rôle tax ba yi lu ñu te ñu nous préserver dal ñom sen sécurité sen bien-être donc lool motax nous bëggone euh journalistes yi tamit nu wax len jàngal len terminologie ay mots yo xamné loolu mo gën pour nous kay utiliser suñuy wax ci migration jox len tamit ay information yo xamné dina changer dal ñom nu doon gisee migration te dinañ gëna comprendre dinañ gën intéressé aussi migrants yi lan moo tax nu dem lan mooy sen profil donc joxé dina tax tamit population bi dina ci gagner parce que xam nga ne que euh, journalistes yi ak presse bi ñoom ñooy ñoom ñooy façonné opinion publique c'est-à-dire nu ñuy waxee ak nu ñuy euh, traité sujet dina am impact ci population bi donc xam nañ ne que suñu leen jàngalee terme technique yu ñuy utiliser suñu leen jàngalee nu gën a xam nu présenter migrants yi d'une autre manière loolu daal dañ xam ne tamit euh, société bi dina ci jot loolu moo tax c'était important lu def formation bi. léegi téléphone moom lan lay wut ci liggéeyu journaliste yi lan la ci wut euh, bu ñuy wax ci mbir migration bi. donc euh, téléphone téléphone surtout smartphone instant yi jamono gi mom xam nañ dafa c'est très très important donc euh, avant dañu soxla woon ay caméra yu reuy matériel bu bu cher te bu reuy pour def ay reportage légui ak smartphone ak ben téléphone pas très cher bu am yenn application ak yenn application rek mën nañ ci def ay. Les journalistes peuvent utiliser pour des choses extraordinaires Ils nañ def ay vidéos, donc journalisme mobile Ils nañ sax monter donc loolu moo formation bi c'était important ak ay moyens yu ndaw yoo xam faire dinañ travail de qualité surtout que jamono gi jamono digital tout va très vite et technologie bi et donc c'est en plus ñëpp mën nañ si jot ñëpp mën nañ si jot c'est plus très compliqué loolu moo tax nu bëggoon ko si boole aspect bu important la ci formation bi comme ça journalistes yi suñu xamee nu ñuy traité sujet wu migration suñu xamee suñu découvrir beneen visage ci euh, migrants yi en plus ñu am technique nouvelle technologie yi yu gaaw dinañ mën def vraiment ay reportage yu professionnel et yu leer et yu baax daal yoo xam ne ñëpp dinañ si gis seen bopp lan moo war a nekk maintenant la suite après bi formation bi pare euh, lu war a nekk suite bi maintenant suite bi moy nous continuer partenariat parce que ñun presse bi ak journaliste yi dañ lañ jappé comme ay partenaires stratégiques donc di début collaboration la te bëgg nañ ñuy continuer Ça yu ñuy def dara ak OIM xam na nek presse ñi ñu formé won ak ñom la continuer def activité bu ñu am dinañ leen ci boole te dinañ continuer pratique bi parce que xam nañ ne que technique yi c'est important mais le plus important aussi mooy maîtriser ko sur le long terme ndax ngeen mën ndax ngeen mën ko jëriñoo donc dinañ def yeneen séance yoo xam ne migrants et ak journalistes yi dinañ continuer pratiquer ce journalisme mobile bi ak montage montage euh, avec smartphone. tey ba doon résumé formation bi participation si yëpp yi ñu ci def est-ce que mbetteel nga ci am naqar nga ci am kontaan nga ci wala dal ok man moom kontaan naa ci torop dama ci content parce que dama dégg na que ñi participer aussi bien journalistes yi que volontaires yi ñoom kontaan nañ ci que jàng nañ ci dara bu par rapport bu ñu ñëwee premier jour am na lu bëri lu jàng aussi bien si migration et aussi bien si migrant et aussi bien si euh, donc technologie mobile pour euh, reportage mobile. te ñoom ñëpp loolu lañ wax naka jàng lu ñu jàng fii en quelques jours dina leen jëriñ lu bëri te am na ñu bëri ñoo xam maîtriser guñ ko won te dina leen jëriñ te kontaan nañ ñom da suñu kontaanee rek ñun kontaan nañ loolu moo tax ma formation bi peut-être ñi fi nekk euh, du ñu représenter journalistes yi yëpp est-ce que euh, à l'avenir xalaat ngeen na aussi yaatal yeneen formation jagal ko yeneen journalistes yi mu jëm ci yu mel ni daal. Hmm. waaw parce que formation bi ñun dañu def benn appel à candidature am nañu journalistes yu bëri une centaine de journalistes yoo xam ne euh, envoyé nañ seen seen candidature donc mënuñu woon jël ñëpp nag lii donc benn test la ñu ngi soog a def formation journaliste boo xam ne boole nañ ci volontaires yi defoon nañu ay formation avant mais format bi ñu ngi koy soog a testé mais dinañ defar dinañ defaat yeneen session dinañ def balaa année bi di jeex dinañ defaat yeneen ñaari session comme ça yeneen journaliste yeneen organe de presse mën a participer. Fekam Marie Seye ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf. yaa yor média ak communication ci OIM fii ci Sénégal nekkoon suñu gan ñu ngi lay gërëm merci beaucoup. merci beaucoup jërëjëf.